asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñoo ngi nii mbokki julli yëpp mbokki soppe Seydina Asan Salaam yi seen mbokk Adama Salaam audio bi ñuy bëgg a tiblu déglu nag ki ko def ñu ngi wax soxna Adja Aram Samb dëkk ca Louga feeñ ci atum 1939 ay atam toll ci 85 ans di waajuru maam Cheikh Ibrahima fal Dieng mi doon ko dékk micro di ko laaj di waajuru tamit soxna Seyna bu Dieng ñoom ñaar ñooñu bokk ci soppe Seydina Asan Salaam yi dégg fàttaliku ne seen waaju daan na nettali si sallallahu alayhi wasallam lu bari ñu dem ba ca moom laaj ko mu wax ñu yónnee ma ko ñu ngi ko enregistré ci quatre ci mois mois de mars ñuy ñaanal soxna si mu gën fi lool te gën a wér ak mboolem njabootam gi yëpp ñu bokk ko teewlu incha allah. waa koy soxna Adja Adja Aram Samb ci Louga. Hmm. waaw danga maama sa wax ma. alxaaji euh, al asan salaam. sëriñ al asan salaam. gise ngeen xam nga ko. ma bëggoon laa laaj gise boobee nan la deme ma fay dem mhm. neen damay dem kër gu mag seen asan salaam fi ma dal dan ma ne loo xewle dangaa bëgg a sa bopp mhm. loo fi wuti asan salaam mi nga xam ne boo dee mu wax la bis bi ngay dee wax la jég bu fa dem ma ko naa dem rek lu ma ko waxee ma ma ko dalee ma asan salaam ñëpp da koy wattu waaw waa njaareem ji sax danoon moom si moom kon waaw waaw. waa njaareem gi sax ñu musulu ci moom. waaw kon nag. waaw bu fa dem wuti woo fa sax ma ne ko bàyyi rek ma dem. waaw suba teel laa fa dem. wax leen nuy fekk defar ndékki. piir ma fekk banque ci perron bi. Mhm. mu ne ma toog ma toog moom gisaguma ko. Mhm. mu ne ma toogal dafa ne ci néegam. Mhm. ku jigéen ka xam naa soxnaa ma. ma daal di toog toog toog toog toog ba mu ñëw. ndeke ba yegg si ñu di nuyoo. foo jógee ma ne ko Louga nanga def ma ne ko maa ngi fi ba dara met man daal damaa ñëw njaareem rek ne du ma dem te gisuma la mm-hmm. ah bëgg laa gis nag rek salaam nuyu la siyaar la mm-hmm. ma ne waaw nanga def ma ne ko maa ngi fi mu ne ma boo jógee fii mm-hmm. na nga dem jëndi njur lu tax xaw ma lu njur lu tax ma ne ko njur tax mu ne ma na nga dem jëndi njur lu tax soo jëndee njur lu tax nga jënd ganaar gu xonq gu mag def ko ci siwa ganaar ga ba mu set njur la nga dugal ko ci biir nga sangoo ko mhm. am ne sax yéen ma waaye dama ko fàtte ma bari na yu wax wala ma ko waaw man nag xaw ma njur lu tax mhm. ma génn ku ma ne waaw njur lu ñu ne ma njur lu tax mooy bant bi da am mhm. benn ji rek weñ gi kese ngay jënd waaye doo jënd bant bi mm-hmm. maanaa ma dem na ci tëggee ca njaareem mm-hmm. gis fa ñu nu yëpp gopp yeeg léer yeeg yëpp ña koy tëgg di ko defar ma ne ko njur lu tax laa bëgg mi ngi nii ma ne ko ñaata mu ma ñaar fukk lay jar ma yëkkati ñaar fukk jox ko te yooye tàng dem jëndi ganaar xonq gu mag gu jeeg gu góor mm-hmm. mi ma ñëwee ma daal di ñëw dugal ko ci sewo bi sanga ko ba pare def ca ñuul la sangoo ko am na nag yeneen yu ma waxoon waaye ca des dama koo fàtte waaye loolu moom jot naa ko cee jàpp hmm. del siwaat naa fa fa tubaarakàlla ba mu yàggee moom del siwaat nuwenteeg hmm. moom ñooy mi ngi ci biir dema ci biir mu begseel ma ñëw fekk mu toog mu néeg bii di ñaari lal hmm. mu toog ci ma toog ci bii ni jàkkaarloo nii ko dama fee ñëwoon nga am yoo ma waxoon booba taan nag fàttewu ma yema waxoon mm-hmm. limal ko yema waxoon yëpp mu ne ma waaw waaw loolu de loolu noonu laa la ko sante woon ba noonu nga ko def ma ne ko waa koy salaam waa mm-hmm. taalal say loxo ma ñaanal la mm-hmm. ma taalal samay loxo mu ñaanal ma booba fa dil tiwaate ma ne ko dama am doom joo xam ne dangaa fekke woon ab juddoom bis ben koy ngénte muy asan salaam moom mësëy asan salaam moom mësëy waaw bisub koorte lañ ko ngénte ta ngeen ginnaaw waaw sama yaay dem ak Sidi Diop mhm. noo ko ngénte ji waaw moo yegg si fa dugg ci kër ga ne ah waaw lu xew fii bàyyi dama fi la ñu ne dañu ngénte mu ne ah ana liir ba baa ngeen ma ko ñu ko ah, tudd ba pare de ah tudde wuleen ma ko ñu ko ah, la ko nag ndax tudd nañ ba pare xamagun woon ba ah a leen ma ko woon baax kon baax na ana liir ba ñu ne ko liir baa ngi nii mu jox leen ma ko nu woon ko ko mu ne gis nga liir bi ñu na mun dana dund ba takk jabar hmm. dana dund ba takk jabar dana màgg ba takk jabar hmm. waaye bu juddoo hmm. ni ngeen ma tudde doom ju góor la cay taawloo waaw doom ju góor góor lay taawloo waaye kii moom bu ko amee na ngeen ma ko tudde ñu ne ah, bi laa wax léegi nak bi bi bi bi bi bi màggee ba tak jabar ba am dom ñu tudd ko nak serigne Assane salam mom ci boobu len tuddee Assane salam waaw mom mo do lire ba. waaw moy lire ba waaw. mom mo do lire mom mom ci boppam. Hmm. bi mu bom bi am doom. Hmm. bi lire bi màggee ba am jabar waaw waaw. waaw mën ko tuddee Assane -hmm. déglu nañ ko fa ñaar yoon sama yamin tafal hmm. yóbbu ko fa yóbbu nañ ko fa new ko mu ñaanal ko waaw hmm. ah, waaw ñaanal ko ñaari yoon yóbbu ko maa fàtt waaw gis na ko kay man maa fàtt lu mu waxoon lépp la ma ko soxna Fabe Dieng mi nga xam ne dégg nga maam moo nekk ak soxna Aram Samb fii ci kër gi waaw di taawam bu jigéen nga ne waaw ma di la wax ne la rek xam nga yenn saay soxna si am yu ma waxoon waaye ndey saan yenn saay yi buy nettali da xam ne am na yu ko ciy rëcc waaye kooku noonu muy liir ba bi mu amee soxna taawloo ci doom ju góor na ma ko waxee woon ñu tuddee ko ko muy Asan Salaam dund na ba am lu am mat fukki at yu topp dara topp ci yàlla dogal na ni la ca toppit doxul waxul euh, moom dong moo ci dox moo ci wax léegi nii ma nga ca itali nga xam ne wax sëñ Assane Salam booba <laughs> macha allah. jërëjëf jërëjëf waaw na solo waaw waaw tabarkalla. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Adama waa koy salaam tabarkalla salaam. salaam ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax te jox la sa wàccuwaay. waaw ah, waaw lii dama ko yàgg yéene te moo ba ma ko bëggee foofu soxna si yaram bi li am dong yu fi ñëw nag jógee ma ànd ñoom. ñu dem Louga sama xel na cee yar ma ne daal bu euh, bu nu àndoon it nii dong lay demee dañ koy enregistré ma ne naa ko enregistré wax la ko sama woy juru jigéen wax dëgg yàlla euh, waxoon na ma ne ma dégg nga maam sëñ asam salaam moom génn jëmb la woon joo xam ne boo gisee da ngay xam ne sax kii du nitu fii ndax ni ko yàlla bind woon euh, xeereer dégg nga àgg ca kaw tool nenn ni moom daal bokkul woon ak nit ñi ci yu bare bare ba may njëkk a nettali mbir yi foofu la tàmbali man maanaam bindub sayir bi rek waaw nga xam ne ku ko gis du la romb te eh, taxawoo xool ko waaw waaw daal doyoon na waar loo tax nag ma yónnee la ñaari audio yooyu nga xool noo koy mixé defar ko ba uh, mu mën a jëriñ doomu aadama yi alhamdulilahi rabil alamin xanaa indi ci leeral ci kàddu yi ki soxna si dafa wax ni soxna Ajaaru Saram Samb fekk ne bis ñuy am tuut tànk bi ñuy tudd Seydina Alxasan Salaam ñëw ca tudd ba teew fekk ñu tudd ba noppi mu ne ana gone gi ana gan gi dañ ko tudd ba noppi dañ ma ko tuddee ñu ne ko tudd nañ ko ba noppi xamuñu woon da nga egsi sax mu ana liir bi ñu indi liir bi mu téye ko daan ne liir bii da màgg ba denc soxna waaye bu dencee soxna doom ju góor la ciy taawloo comme tuddee ñu ko nag moom mii bu màggee ba denc soxna doom ju góor la ciy taawloo nañ ma tuddee euh, gone googu muy muy taawloo ci soxna am soosa wax ko ci liir bi liir bi nag nee nañ màgg na ba samp kër denc soxna doom jëm njëkk am ñoom ñi fekke woon lool nee nañ doom ju góor la taawloo waaye defe na ko na ko sëñ bi waxee woon sëñ Asan Salaam la ko tuddee doom ja tey ma nga ca Italie ñu koy ñaan sama yàggal ko te wéral ko loolu la moo doon wax ci kàddu yi ñu doon ko leeral wasalaamaaleykum. bu fekkee ne gaañu baax ñu ñëpp dañ ko nekkoon ba ci matal seen àq. seen barke ci ñoom dong lay yem waaye du agsi ci nun ñoom ñoo jëfe woon li xukkamaa yi wax ne amal li dunyaaka ka annaka la tamuutu abadan wa amal li axiratak ka annaka tamuutu xadan ndax li ñu jëfoon bu fekkonte ne dafay yemoon ci ñoom képp ba léegi duñu taxaw di ko waxtaane di ko sulli ngir nit ñi di xam la ñu jëfoon di yoon wu ñu tàllal woo xam ne nit ñi dañ cee war a jaar ngir texe ëllëg kon bu fekkee ne seet nañu ne ñooñu dañu noo liggéeyal liggéey bu rëy nu baña set kenn fu fess luddul ñëpp bok bëggando ñëpp bok wormal ñëpp bok sam ñëpp nu bok nday bok bay yëpp li nga xamne mom lañu alquran wax ak li yalla fi wax sallallahu alayhi wasallam al muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi zimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum ñi gëm ñëpp seen jarat ben la ki gëna a suufe ci way gëm ñi bu ci nit bu leere wëllëre woowee war na jullit ñëpp jullit ñëpp benn loxo lañu tiim képp koo xam ne dal nga ci kaw kenn ci ñoom di seet nag masuliya maanaam responsabilité sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoom la ñuy sulli seen i jaloore seen masuliya di lu mag ndax dañu ne a zalla al aalimu zalla bizillatil aalamu koo xam ne benn njuumte boo def mbooloo mu dul jeex topp sa njuumte loolee jàppee ko dëgg te duñ ko fas yéene bàyyi mukk te loolu lépp yow yaa koy gàddu sa responsabilité rey na